jërëjëf mbokk yi ñu ngi jàkkaarloo ak euh, Serigne Maguette Diop photographe. cinéaste. sëñ Maguette Diop buñ koy présenté mënees na ko présenté sëñ Maguette Diop mu sëñ Abdoulaye. waaye toll woon na jamono joo xamante ni bii ay 1977. 76 75. 1975 1976. jëm ba bëgg ñu fi jógee Touba Mbacke mën nañu wax ne kilifa gu fi fotow rek Maguette Maguette Diop moo la foto sëñ Maguette ñu lay nuyu. ñu sant ñu ngi sant bu baax. ñu bëgg waaw dinaa ci sawar parce que man bés bi dafa màgg ci man ci huit la laa fekk si suba bon donc bu fekkee ne da ñëw te ma yàgg laa xam si di la suivre nangul la ko du ñëpp laa koy nangul photo moo ma fi indi bi may ñëw fii Touba mais bi may jëwee Sénégal jóge Paris télévision moom jëlee woon Paris ma ñëw parce que sama papa. grand sëriñ de Dakar la daan àndal kilifa yooyu lébu la donc fexe woon nañ ba Senghor bind ma lettre ne ma naa ñibbisi parce que dama ko bindoon lettre si di ko critiquer maanaam di di sàmbar li mu daan bind ci Afrique mu fàttaliku ko daal di ma nangu lool ma ñëw mais nag bi ma ñëw ma boole woon ci télévision ni ñu doon liggéeye tàmm woon lool ñëw ñu naan la dañuy xaar ministre bi def décision dañu xar décision ministre bi pour nga commencé ñu fay laaj lii wala ñëwal ci taxawaalu foofu xaw ma lool ci laa dajeeg sama benn xarit boo xam ne ñoo nekkoonoon te mu jàngal ma aussi muy coureur d'automobile Daniel Thiaw wax naa ko sama tayre bi ne yow li nga xam ci métier looy taxawaalu fii di perdre du temps defal publicité photographie nit ñi xamuñu loolu fii publicité man daal ne ma am na sëriñ morit yi am nañu ay am ay politiciens fii am na ay nangam ne Doudou Bakassar ñu ngi fii yëpp man da leen photo ñu jaay ko fii tout ça ñu présenté ma Cheikh Mbacke bu sëñ Abdou Bass Cheikh Moustapha Bassirou ma ne ko yóbbu ma sa mu yóbbu ma fii ci Touba mais Mbacke lañu yem hmm. bu ñu yemee Mbacke tim tak tis timis lañ fekk si kër ku ñuy wax ñu jóge kebe jóge jóge si la moo ñu dal fekk ñu ko fa nag mm-hmm. pour man après ñu ñëw ci xabru bi bu may wax dëgg xamu woon sax luy xabru xam nga luy xabru boobu kon tax delluwaat cosaan waay <laughs> booba sama xel xalaatul sax fu Touba nekk boog ma wax la ko man dama samay wax dafay dëgg comme lii ma indi ma fii ci Touba ñu ñëw mu dugg ñu dugal ma ci biir xabru bi fii timis ma yëg dara sama yaram foofu laa jëkk a jege dara sama yaram sama yaram ko tuur ci tapi bi ma nekkoon ci biir ñu jóge fa ñu ne sëñ baa ngi belel ñu dugg dem belel ñu yax belel ñu belel ban at. soixante seize. soixante seize. ñu dem Belel parce que soixante quinze laa ñëw fin soixante quinze laa fi ñibbisi mm-hmm. li ma la doon wax ci Senghor ay soixante quinze la ba soixante seize ci laa xam dañ mu indi fii mm-hmm. ma dem Belel boobu neuf heures war naa jot diggante bi neuf heures ci guddi ñu ngi fa fekk alaaj moom moom xaw ma kanamam nu mu mel ba tey mm-hmm. ci benn néegu ñax. ma ànd ak Cheikh Mbacke Ndiol bu sëñ Moussa Bassir ak rakkam Moussa Naawen ñooñu lañ la fekk foofu ci biir ñoo ma yóbbu ñi si des moom Mbacke la ñu toog ñu mewu ñoo ñëg si bàyyi nañ ko ba bi ñu ñëwee ba ci yoon bi sax Cheikh Mbacke def na ma ah maa ngi lay yóbbu man bu ma fa tudd ci li ngay def bokk ma ci bi ñëwee ñu ngi néeg bi amul électricité ay torche lay rawan di ñu di mën nit léegi nit boo xam ne bu si daal day jékki-jékki sànni la torche bi pour xam sa kanam yow kan mais man xaw ma kan mu nekk sama kanam. Mm-hmm. parce que tàmmuma lëndëm gi. mu di ma nit mu daal ne ma lu doon say tànk ma ne ko li doon samay tànk daal bi lenn la sa nataal laa bëgg a def siiwale ko ci àddina bi. directement mu ne teg waxul di continuer sama wax du bari aussi parce que sama wolof beeg kii jàmmante bi tàmmu ma ko maslaa bi yooyu yëpp man daal wax naa li ma soxla li ma bëgg foto la daal yóbbu sa nataal ko loolu moom mooy sama yitte mu di man nit ba si yàgg ne ana Moussa Moussa ne ko maa ngi ni mu ñëw ah, xëcc benn buur yi ay ginaar rek ci nekk mu ne ko kii mooy reeram yaa koy yenu ba ci oto ba nag boo lëggee yaay raxas samay bool indi ko. Moussa Nawane dal na sëñ Cheikh suba ngeen ñëw dix heures man xaw ma sax mu ngi mel ba léegi mm-hmm. ñu génn bi ma ñëwee foofu ñu ubbi bi mu nekk ay ginaar rek mu ma dégg ko booli bi ak ginaar yëpp pour après rek. far ndekete mu njuga si la ak morba ñu mm-hmm. suy nañu benn xar teg fa di ma xaar man xaw ma leen de mais dañu après lañ ma ko wax ma ñëw fekk fa benn xar bu ñu mis mm-hmm. man si sama dund dem naa Europe ba def fa sept ans tout ça masuma gis mis yi masuma gis fukki naar wala lu fukki naar si jëlee ci benn nit ma woo masuma gis mm-hmm. waaw ah ñu lii reer après suba ga ñu daal gaañ ne may woo ñu dem ma gis ko la première fois ci photo tegal ñu tegal ma chaise ci tokkër ba mu ñëw ma jël Cheikh Mbacke natt ko seet sama distance ak appareil ma appareil ma yoroon mooy appareil yi ñu daan photo Sëñ Touba chambre maanaam chambre lañ koy tudde du appareil vingt quatre cent non non planche planche la mu ëpp euh, négatif bi kenn wàll page bi la def na neuf centimètres sur les moom la ñuy euh, waaw yooyu yooyu mooy photo yu jëkk yi mais bu mu moderne nag boo xam ne mais yooyu lañ daan photo sëñ Touba yooyu amoon mu ngi si photo bi fii sax ma téye ko ma koy photo léegi moo photo ba pare la mu ne ma def naa ci moom la cliché yu bari mais changé wu tey li ma remarqué ma daal ne li ma jëkk a suma sama évidemment bi ma nee xaw ji bët yi dama ne nañ changé lunette yi dafa ko lunette parce que dafa ma lii rek ma daanoo ko appareil bi bët yi moom loolu ma jëkk lii fekk da ngay muuru li nga muuree nag maag moom ak yàlla rek mu ne xam mu yi rek bët yi weqal mu daal di daanoo moom ci kaw kaw waaw da ngay foto da ngay muuru ak léegi nekk ci ginnaaw waaw bi may defee lii nag ba suñuy bët daje rek mu weqtal du jaaw yi ma daaneel appareil bi ci kawam daal di jaa jaa gaawantu rek pour jéem ko taxawalaat pour réglé waat appareil bi mm-hmm. def naa ci moom 17 cliché ci jotaay bi une demi-heure toog na ko mu seetlu ne mais kii moom xanaa nit yëngatul ni mu toogee woon ni ma ko toogee woon noonu la toogee xeeful li maam doon yëngatul mm-hmm. pendant trente minutes ma mujj doyal daal na ko doy na mu jóg ne Cheikh Mbacke nee ko dama kanteeg moom kóllëre waaw ne ma daal koy jël deux mille francs jox ko ne ko jox ko ma ne ko ah déedéet Cheikh Mbacke na nga xam ne fi ñëw ma ne ko loolu nangul naa ko nee ko nangul naa ko mais mille francs yi du ma ko jox mu ne ma nag du ma ko delloo dix mille francs yi jël dix mille francs ma daal ne ko d'accord mais daal dëgg-dëgg ñëw ma fi pour ñu may jox ay dix mille francs ma jël dix mille yi am na bëkk néeg boo xam ne xàmmeewu ma ko nag ku njool la nii ma jox ko dix mille yi noonu laa xamanteeg Sëñ Abdou Lahat ak wax ja Cheikh Mbacké nag ne da nga fiy ñëw tout temps loolu mooy xamanteeg moom couleur day fi ñëw waaw la ma taxoon jóg amoon na succès mais manuma koo xam parce que man xaw ma millier bi ma nekk la preuve keroog ba ñu indee photo yi weeyu màggal la ca suba ga six heures ba mu jotee ma gis dëkk bi yëpp vide ma naan waaw ñii lu ñu wute lu ñu jógee Dakar ñëw fii te dañoo fanaan rek gisatuma kenn dëkk dëkk bi luy màggal lan lii luñ fi wut si woon xaw ma woon luy màggal xaw ma par pour moi maanaam voyage bi lii lan la ñëw cinq heures timis guddi fanaan bët set six heures ñu bari ñu ne rentre nañu lii mooy la kon luñ fi doon wut si loolu laa foofu laa toll woon sama gëm-gëm Tuubaa xaw ma fi dara bañ naa ko bu banaan ñëw banaana laay indi booba mën ngaa toog fii teg góol comme niñ koy defee lii fii di tegal boole boo ma wool duma ñëw te bu fekkee ne xaw ma leen du ma ñëw noo def ba jébbalu noonu déet maa ngi ñëw maanaam kóllëre googu mu wax nag bu ma daan ñëw ak euh, Cheikh Mbacke kër sëñ Moussa Bassir la ñuy nekk Daaru Minam lañ daan nekk léeg-léeg sëñ bi daan na fa nekk xaw ma lu daan xew mais daan na fa nekk ba mujj gi ñu ñëw fii ci la ma sëñ bi nag ne ma képp fekk benn bés ma ne jaxasoo Dakar ne damay delluwaat Europe parce que foto yi daal indi na ma problème coow lu bari na lii saa. benn photo moo fi amoon Senghor bu toll noonu. Senghor bu ko nag sax affaire boobu maanaam benn photo bu mag. Hmm. toll nekkoon ci bureau yi bu Senghor. moo fi nekkoon moom photom benn ni mu toll benn la foon si Sénégal am na kilifa gu mag boo xam ne sax du ma tudd. waaw moom moo ko njëkk am fi Sénégal kilifa gu bari nee nañ ma lu tax ngay defal Sëñ Abdou photo kii mën nga ñoo seetal ban photo la nga njëkk photo mooy ban ñu sol la ñu karo mu ngi nii mu ngi nii day bari ma li xal kii mooy photo bi photo bi mooy bi jëkk deuxième baa ngi nii kon photo bi mooy bi jëkk waaw suñu photo bi suñu waaw bii tabo bi waaw différence nag am na différence parce que li waral deuxième bi dañoo toog ñaari at coow li bari ci photo bi ci photo bii mhm. te accident tey naa ci diggante bi ba mu téye ma fi wala accident ba ba ma jógee ci accident ba ci laa ñëw fii mu bëgg damaa bëggoon dellu Europe mu téye ma. kon bu njëkk bi belal la. yëpp belal lii mhm. ñaar yëpp belal la. bi ma defee li coow li bari ma ñëw ne damay delluwaat Europe fekk jóge naa ci accident ba doon ñëw fii accident ba ci xaw feex rek la ne dëkk bi daal damay delluwaat fu ma nekkoon coow li bari ndax photo bi benn bés fii ci kër gi. saal bu mag bi fi mu nekk mm-hmm. ab kaasa fa nekkoon mm-hmm. mu woo ma foofu daal ne ma man daal damaa bëggoon nga jël ma sama jëmm saa jëmm ji ma ne ko sa jëmm loolu mooy lan mu ne ma saa amee jot nga ñëw ma sama jëmm ji ma ne ko xanaa li ma defoon bu sa jëmm <laughs> ah, ah, ma ne ko xanaa li ma defoon du sa jëmm saa yoo amee jot rek ma dellu Dakar lundi comme tey boobu maa ngi fréquenté benn tubaab bu yoree affaire photo yi ci place indépendance ñuy wax moutarde naka laa ñëw rek dañuy jël kafe foofu ci café bi nekk foofu ak côté tout le temps café bi rond point mu ne ma Diop mais il faudrait que bés booy seeti sa marabu bi nga ànd ak man pour ma xam ko ma ça fait longtemps que je suis au Sénégal ma su ma xam. ci photo bi lañ ko waaw tubaab bi daal ne ma booy booy demati Touba nga yóbbaale ma. ma ne ko c'est l'occasion sama oto dafa paan dama war a dem Touba <laughs> mu ne ma kañ ma ne ko samedi mu ne ma samedi c'est bon ñu dem samedi mu ne ko samedi préparé soto ñu dem samedi noonu la ñu ñëwee fii fekk sëñ bi fii ci diggante baar mu mag mi amoon na benn bunt saal saalo euh, non sëñ sëñ seexu naa bi waaw foofu waaw ñoom ñu toog ci pegg bi fii boobu néegu ñax baa nga fële ak mbaar mi mhm. néegu voilà ma fekk ko foofu naka la ma sëñ Maxtaar Fall seen daal na ma gaawal sëñ bi day dem bela mhm. rek ma dal di ànd daal ne ko man dama ànd ak gan mooy ne ma ne ko benn tubaab daal moo topp ne bu def la bu nga xam mu daal di Moussa Saliou yóbbul ma leen beleel jitu leen ñu dem beleel neuf heures fekk nañu beleel comme dañoo teel a si neuf fekk nañu beleel ñu ñëw fekk sëñ bi ci pénc bi ñu toog ci banc ngi foofu mag tubaab bi toog toog toog toog ba tisbaar ñu nodd bi ñuy noddee tubaab bi moom sonn na ci toogaay bi parce que gisaguñu dara ñun ñu ngi ci penc bi sëñ sa bu jóg ñëw ci man li ma sëñ bi ma na nga wax tubaab na noonu na bu ñu jullee ba pare bu ñu ci biir ñu def photo ah. na ko. Mm-hmm. dégg nga ah ma ne ko ok waaw ok laa ko wax mun na ma waay da may fonto kilifa yónni ma wax ko tubaab bi tubaab bi ne bu ñu paree moom dafa ne tubaab bi ñëw seet si lii waxal tubaab bi wax ko ma dégg ko dañ maa yónni <laughs> ma daal ne ko bu ñu paree tam ci biir après nag nañ julli foofu rek bu ñu jullee ba pare rek sëñ bi dugg ci oto bi dem ñu dem ñu far benn nekk bi ñu demee toog ci néeg bi trois heures añ lat fal ñëw dal ne sëñ bi day ngi jéggalu nee na prévoirul maanaam ganale gi daal prévoirul ab añ ci kër gi eh, ma eh, añ bi ñëw muy benn super bu def ceebu keccax <laughs> ñebe <laughs> ma ne ko problème am na ak ni ñu xiifee ñun ñaar ñu teg super bi su waay yore ñu kudd mhm. waaw ma jékki-jékki gis suwaab yi di jeex keccax bi ci biir ceeb ak kudd gi mu ne waa kii bi def nii di ko jeex di ko lii waaw daal na ma Diop c'est quoi ça ma ne ko mais ça c'est du poisson fumé mu ne ma mais ça fait sept ans maa ngi ci pas mangé ça ma ne ko alhamdulilah kon nag lekkal. <laughs> non mu lekk lekk ba kii man xeefatuma sax ndax comme sama xol bëgg naa quoi comme que bëgg na rek waaw man li toog ba si yàgg su waay ñëwati laat fal ñun suñu photo bi rek moo ñor ñu wax sëñ bi nee na nga laaj ko ndax bëgg naa ataaya wala café ma ne koy tu veux du café ou du thé mu ne les deux <laughs> mu ne les deux ñu di naan léegi laat fa dellu si waat daal sëñ bi nee bu ñu lee takkusaan ñenn ñenn dafa doon takkusaan ñu ku fi nekk ma ne ko bëree nga ne sëñ bi fu ñu teg lee takkusaan bu ñu teg minute <laughs> dégg nga mu ci teg minute non maa ngi man sama technique laay xaar sama yoruma flash du ma jël flash du ma lumière naturelle ba laay jël te xam naa ne fañ koy defee bu bu guddee du baax ma ne ko bu bu ñu lee takkusaan bu mu ci teg minute. boole kaag euh, planche mooy lii euh, sensibilité bi bariwul cinquante asa la déjà vingt quatre trente c'est cent vingt cinq asa c'est beaucoup plus sensible boo bëggee plus sensible tu peux avoir cent cinquante deux cent cinquante professionnels beaucoup sensible nga xam ne fu lumière amul sax mën nga fa photo mais euh, planche yi ma yore woon pour def photo ay extérieur ak grain bañ am ci photo yi cinquante asa la donc bariwul sensibilité mais il faut de la lumière naturel bi cinq heures bi ñu jullee takkusaan ba pare rek waa <laughs> Fall ñëw acc bokk acc <laughs> bi panique eh Diop qu'est-ce que je qu'est-ce que ah, yenul bagage waaye ci moom <laughs> yéen yéen ko bagage yi daal di jël yenn néeg bi benn néeg li ci daal ne ah photo bi de fii lañ koy defee nag lal bi de yaa ngi ne trop ma ne ko du ko defee nii de sëñ bi daal seex sëñ bi daal ne ko bàyyi comme na ko defee fu mu ko buggee mais comme dellu siwaat naa mën a eh, man kilifa gi ni ma ko tontoo kat ñeres na naa ko rectifier dal na ko mën naa laa defal photo ci lal bi mais man photo bi may def ci biti la daal di def photo ci lal bi. mooy bii. mooy deuxième photo. mooy bii mooy jëmm ji sama jëmm ji ah, bii mooy ji. Ah, moom la nga laa laa nga defal ma ko ma ne ko li ma jëloon xanaa du sa jëmm. nga bii maa ko ñaanoon ne ko dama koy léegi mhm. ñu def loolu fotoy yi ba pare après ma photo ak moom sax parce que tubaab bii laa jox appareil bu ndaw bi ma yoroon mu foto ma maag sa ñoom sax ak moom ma toog nii mhm. bi mu ko defee mu ñu ñaanal ñu ñu ñibbisi ci ñaari photo yooyu yu officiel diggante bi nag miinante gi am visitu Abdou Diouf yi man maay reporté yëpp fu mu nekk gan gu fi ñëw Sékou Touré Mobutu lépp fu mu nekk ci nekk mën naa bu ma ñëwee duñu abdul woo moom kay aw ma patron moom ay la ay Karim Fall ak yooyu yëpp fu ñu nekk ci buntu bi dañ may bàyyi ma dugg ok ak ñëpp kay amul kañ te may woo moom kay aw ma ak affaire moom boo aw ma ak affaire maak hmm. sëñ bi rek maak sëñ bi rek non non. bu bu ah. yëpp. yëpp 36 voyages yi kii sëñ Abdou Diouf def yëpp man la. Abdou Diouf 36 maay dem. bu mujj bi ma sentir ne ne sëñ bi mooy bu mujj bi dama ko sentir parce que bu mu woon foto keroog sama dama ay. jeexaluma pellicule alors que je faisais presque ay huit pellicules ay cent plus de cent photos ay deux cent photos laa daan dama tiré rek du ku ma neex rek ma tiré la photo la. dama yooyu yooyu moom vingt quatre ans yi Dakar laa koy sottee sama xaalis bopp laa koy sottee ñu bari sax ñi ma daan bokkal cinéma bi defe dañ may subventionné alors que sama liggéey sama liggéey maanaam publicité yi ma doon def dans le privé ci laa doon financé sama activité fii. lu ma sëriñ ci jox du ma déedéet déet man sama li activité bopp parce que boobu damay illustré ay livres avec les nouvelles éditions waaw. nu sëñ Maguette gisee léegi jamono jooju ak euh, technologie bu xewoon ak bi xew léegi nii. technologie bokk comme li ma lay wax ne booba déjà même l'impression sur papier en offset lañ ko daan def quatre couleur y avait des machines offset yoo xam ne day jàllale quatre couleur yëpp. bu fekkee ne jàng mu prise des couleurs couleurs yi nga xam ne war lañ leen a dajale pour couleur yëpp génn ba ci noir bi. kon photo dafa am couleur yu bari yu ci war a couleur yëpp couleur yëpp ñu ngi dajaloo ci la couleur bi blanc bi. Hmm. c'est l'ensemble de toutes les couleurs mooy jant bi nekk ci biti hmm. bu jant bi fenkee hmm. mu lëndëm. doo gisati dara dootoo gis lu weex lu ñuul ngay gis c'est l'absence de couleur couleur amatul bu guddee mais tant que lampe wala jant bi wala lune bi ñu ngi éclairer quelque part ku si nekk ak sa de d'éclairage couleur day feeñ lu weex lii ngay gis làmp bii ngay gis couleur yëpp ngi bu ko fayee nag l'absence de couleur noire loolu téléphone yeeg internet li suñu numérique bi daf ko régleel ñëpp ba nga xam ne du kenn soxlaatoo jàng lool waaw booba même ci offset bi ma lay en imprimerie ci ñu ngi ko tegee ci encore ci composition des couleurs dañu xam ne ñeenti couleurs yooyu boo leen dajalee di nga am couleur yëpp nuances yëpp waaw le vert le bleu le rouge le jaune ñeenti couleurs yooyu yëpp dañ ko comme buñ ko boo ko boolee yeneen intermédiaire yëpp day génn couleur yëpp booleen boolee dafa am lu muy joxe. si magal ban ban ban ci yow bi la ban photo. bu njëkk bi ah non. bu njëkk bi ah oui bu njëkk bi parce que boobu xaw xawma ci tuubaa dara kii wax aussi bon ak ni mu mel ci liyam booba. yooyu yëpp xaw ko nit ki lu mu xamul rek xamu ko léegi nag ñëw laa ngeen ci photo yi ñu ndigal excès yooyu boobu fekk na mokk naa ndigal ah non non sooy mi yi ah. waaw lan li ko indi. Ah, xam nga euh, man dama yemuma ci photo dama teel def photo mais cinéma laa def. bi Senghor di tàggoo fii keroog. sëñ bi dafa def benn discours boo xam ne bi ma ko dégloo dama ne ah góor gi li mu wax garaaw na de. <laughs> Sénégal ñaare fi am diine ji la wax ak dëkk bi kenn ko séddoo mat naa ci yàlla keroog dama ne parti politique nañ dee keroog bu ma waxee loolu fii ci discours yi laa ne ah benn problème dina am yi de ci laa commencé def ndigal di ko bind di filme kenn xamul loo ba saaga nañ ma fii sax ci jumaa yi jaar sama ndey saaga ma ne ma li nga filmer te kenn du ko gis taxaw fële ca defaraguñ ko mu woo ma ba ma gestu mag ñooñu baara joxaane ñu ngi ay caméra yi fii ci biir ba ma gestu mu jaar mu dëgg dal ne def noonu nangam tan te kenn du ko gis naka laa koy lay man maay filmer di denc samay lii bés bu ma xaalis dem Paris defar li may def indi ba may def sama film tàggu ma kenn maa gis loo xam ne gis naa ko dinaa ko def am na loo xam ne mu ngi ci dëkk bi buñ ne kii fi nekk bu joxee ndigal nit ñi nañ ko suivre ma dem seeti ay kilifa soxna May mu boole maag ñoom soxna Bari ma dem seeti sëñ Moussa Bassir laaj leen luy ndigal ma dem seeti sëñ Abdou Sakhour Fall laaj ko lan mooy ndigal mu wax ma ñoom ñëpp luy ndigal. ma dem si suñu Moussa Bassirou daal na ko ndigal ma fay bugg damaa bugg nga xam wax mooy parce que ndigal loolu dama ko déggoon ca sëñ Abdou Khadre ak sëñ Cheikh bu dam dër bi ca foto ba ñu ne ma amuñu si ndigal man leen dam def nag film ci ndigal comment bi may def samay recherche di dajale ay éléments ci laa gis ne pour di wax ndigal te gis naa kilifa yu bari am naa seen enregistrement te xam naa murid yi lu ma dugg seen débat ñu naan Maguette jot dafa soof lu muy wax naan lii mooy lii naa jël ndigal li ci sëñ Abdoulaye wax ak kilifa yi liñ ci wax bu ko defee kenn du ci teg baat méthode boobu laa jël def un documentaire film boo xam ne lépp lu ma ci wax sëñ ci wax wax ko ci alxuraan wax ko ci wolof mu seppi ci ay li pour illustrer maanaam loolu mu bëggoon traité ci film bi laa nekk de mm-hmm. muy ndigal ba ñu paree ndege des fi gën a garaaw bërki démb laa ko eh, laa ko xam bi ñuy ne Cheikh Bamba Dieye dañ koy nommé sama xel fàttali dal ni attends man ba may def film ndégal ndekete Sëñ Abdu Lahat xamoon na ko sept ans avant ne dinaa def film naka la ko la la ma ko waxee dama ñëw indil ko photo bii muy wax ne mooy jëmmam mu en quatre vingt soixante la ñëw fekk ko ci biir belal ci tóokër ba moo si Ablaye Dieye mu ne ma ndax xam nga kii ma ne ko déedéet daan naa dégg turam de mais xaw ma ko mu ne ma damaa bëgg ngeen xamante noonu laa xamante Cheikh Ablaye Dieye parce que boobu xam naa ay yëngatoom ci Paris mais xamante hmm. mu ne ma xamante leen bi ñu presse ba pare Cheikh Laja jóg dem bàyyi ñu fa ke la ma jëlee dugal ma ci benn néeg daal ne ma kaay moon la sa photo bi na ma ko def man xamatu ban photo lay wax parce que wax na sama jëmm ji def naa fi photo mu ne ma defaraat ma benn ma ñëwati indi jëmm ji mu daal ko may teg fële daal ne ma sa photo bi ma naan daaw kii ban photo la may waxati ndekete photo sëñ Tuubaa yi ma daan jox ba ma koy agrandir yooyu yooyu la wax sama sa photo bi te jóg man ci benn nekk maarital te man sax xam woon sëñ Touba keroog la ma sëñ Ablaat wax kan mooy sëñ Touba mu daanu ci biir photo bi jël tors di man nit comme nu ma doon nitee di bàcc lumière bi ci sëñ bi naan ma kii di ñaq di ma baaje boobu xam nga damaa sewoon tuuti waaw di may si biir néeg bi maag moom rek néegu ñor beleen bu xëccee sama loxo bi fii dóor li bi kii mooy sëñ di ñaq ba may sentir ndox mi ci sama loxo bi man a teem ay yooxu parce que kii kat mën a moom ëpp doole te mënatul eh, àndatul ak sagom ki mooy sëñ Tuubaa mais lu ma la nettalee rek def na ko keroog ci néeg mu après la mën a yalax génn mu woon naa bu mu bàyyi loxo ba ma génn parce que moom ëpp doole mu ma téye waaw mais bu xëj bu liyee ak torsi ba ma dem côté boobu bu liyee rek ma daal demaat côté bële mu ne ma sama photo yëpp man ko koo tasaare mais bi bu ko weccee ko ko jaay ma ko bul def ci film ci moom bu ko wax loo secret yëpp moo tax bu ñu wax ay defal film xam li ma xam ne pat rek dañuy wax rek mu ne ma bu ko wax loo bu ko def loo kooku ni mu xamee sëñ Touba waaye yow ma